mbokk yi ki ñu taxawal mooy Chérif Moulay Chérif Moulay nag ñu gis ne euh, day taxaw lu bari euh, kuréelu yi nga xam ne ni ñooy nekk fii ci euh, Mauritanie surtout nag lu jëm ci yoonu Mouride Chérif Moulay mën nañoo xam li la boole kuréelu Sarsara. waaw dafa yàgg nag gannaaw bi mu jullee ci yonent bi sant yàlla mi ma may kattan man ak sama mag bii boobu ba léegi ñu koy fekkee at bu ne incha allah yàlla seet ñu ci cër ci cër boobu xaaj yebal ñu ci. ne waa Sarsara suñu dëkkaay lañu mbokk jullit lañu te it taalibe Cheikh Ahmadou Bamba lañu yooyu yëpp ay mérite la yoo xam ne yi war nañ leen gàttandu nu ñu nu mu waree léegi alhamdulilah 19 édition bi maanaam fukk ak juróom-ñeenti at ñu koy fekke yàlla may ñu diir googu ñu fekke ko nañ ci gërëm yàlla ba pare sant yàlla it te bi ñu bi ñu mayee diir googu mu may ñu ko ñu ànd ak nitu yàlla Cheikh Ahmadou Bamba kenn umpalewul ni mu nekk ci diine ci xam-xamam ci wilaayam ci nekkinam ci def lu baax diggante nit ñi bi mu ñëwee yit it euh, ñu fi fekk yëpp kànk fóore yi mu fi fekk ñëpp seedal nañ ko loolu seedal nañ ko xam-xam seedal nañ ko wilaaya seedal nañ ko bëgg lu baax loolu bi mu fi ñëwee mu tuddee Mauritanie ardu salihin moo tax xam nga luñ ko mën def rek joxuñ ko gëddëm ñun nag Euh, Matamulana spécialement yàlla dafa def ñu nekk douze kilomètres Sarsara muy ala kulli dëkkaale ci ñun di am gëndëm mënuñ ko fay. mënuñ ko fay luñ ko mën a def tertu buñu ko mën a def duñ ko mën a fay waaye incha allah dañuy jëf li mën def na nag léegi ñaari at may nekk ci comité d'organisation yi incha allah ñoo ngi ñaan yàlla muy gën di jëm kanam léegi mi ngi weef parce que am na yu bëri yoo xam ne diisoo na ci mi ngi weef. ñu ñaan yàlla yooyu loolu mu jëm ci kanam incha allah. mu mel ne ren ji tamit gis nañ nga sonn ci lool ci diggante euh, diggante frontière bi ak fii diggante formalité yooyu nu mu demee. diggante formalité yooyu vraiment ren nguur gu Mauritanie dimbali nañ ci parce que déjà pour la première fois euh, taxe communal yi ñu daan fay dindi nañ ko police dootuñ ko jox dara. gendarmerie dootuñ ko jox dara douane dootuñ ko jox dara oto yu ndaw yi dootuñu pass dootuñ dootuñu fay ñoom it bon de sortie waaw lu lu bëri daal wàññeeku na waaye côté Sénégal moom moo des moo tax ma laajoon ne dañuy def dañuy war a def incha allah l'année prochaine CRDR ñu def ko Saint-Louis boo ko defee ñu impliquer les autorités foofu au niveau de Saint-Louis surtout la gouverneur pour ñu xam jox ko sa saara gëddëm euh, wéyfalal yoon bi. parce que vraiment am na ay rëq-rëq yooyu am ci niveau du Sénégal voilà yooyu nag war nañ ci jóg te li tax euh, muy am c'est que xam naa ni gouverneur bi da kaa yóbbul rek waaye bu ñu xamoon li fee jàll. Euh, cette année on prévoit 5000 personnes 5000 pèlerins la ñu prévoir cette année. waaw juróomi junni nit nag bu ñëwee am ay xale yu ci nekk am ay jigéen yu ci nekk vraiment nguur gi bu ko yëgee war na ko way falal war na yombal yoon yi. waaw ah, parce que vraiment loolu daal moom moo moo moo ñu léegi suñu priorité ci ñun moom mooy premier objectif bi mooy au niveau du Sénégal nañu rataxal yoon bi comme ni ñu koy rataxal yeneen ñeneen ñi parce que talibé Cheikh euh, Cheikh Saad bu Nimjat bu ñu ñëw da di wafal yoon bi carrément léegi te ñun yaakaar nañu li ñuy ñëw ci pèlerin ci ñun moo gën a bëri li ñuy ñëw ci ñoom waaw nañu yombalal yoon bi loolu rek la ñu laaj waaw waaw si sinon jàmm rek laa ci gis alhamdulilah jàmm rek laa ci gis alhamdulilah mel ni eh, gis nañ ne dëkk bi tey jii yëngu na dorop waaye teewul ñun ñi sànq bi ñuy ñëw suñu oto amoon na jafe-jafe ndax ñu ngi bëggoon a dem aéroport pour jëli suñu Chérif waaye ñàkk a li ñu wax ñàkk a comprendre tax na ñu daal di ñuy jël ki ñu waaye ca saas rek lañ la gis nga teew. waa loolu loolu day am parce que nit ñi léegi les policiers léegi dañoo nekk sous tension te dañoo dañoo dañoo am coono bi ñu gisee nit ñi apparemment dañ doon suivre oto bi neewoon na amoon na beneen oto sax bu newoon ak moom ñu suivre que ñu yaakaar na dañuy filmer pour di def pour am ci daal leneen mais bi ma ñëwee ba expliqué leen ni ñi waa Sarsara lañu taalibe Cheikh Ahmadou Bamba rek la daal di génn ci affaire bi waaw biñu ma ne leen suba it dinañu dem parce que suñu convoi ala kulli cent cinquante un minimum Hilux yoo xam ni day fees ci nit dem yooyu il faut ngeen prévoir que ñu ne ma suba rek da ngay day laal fii ñu boole la ak commissariat yi ñu def message bu ko defee ba ñëpp yëg ko ñu bañ leen indil benn jafe-jafe vraiment au niveau de la Mauritanie les autorités mauritaniennes c'est pas pour me flatter dimbali ñu ñu ci Sarsara vraiment loolu loolu loolu on bi am na ay modification ren yoo xam ne positive parce que ñi ñëw ñëpp casé leen au niveau hébergement au niveau bu rafet ba bi 4 heures du matin hmm. mi ngi yeewu pour organiser euh, affaire hébergement bi ak affaire nourriture bi hmm. tey fajar hmm. waaw bi mu jullee fajar la laaj est-ce que gars yi ndékki nañ est bi dem na ñoo ngi sant yàlla sant Sëriñ sant xalif général Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moom moo yore yëpp ak parrain bi it parce que ren Cheikh Mouhamadou Fadel wala Cheikh euh, Ahmadou Bamba moom moo parrainé manifestation yi mooy parrainé Sarsara ren màggalu Sarsara moo ko parrainé waaw vraiment euh, tout est bien ba léegi organisation bi aw na yoon te chaque année day gën di avancer rek alhamdulilah. mu mel ni euh, xanaa li ñuy tëjee rek moom mooy diggante euh, Haji Misri ak ak waa comité d' organisation. waaw Haji Misri ba sànq bi ñu ma téléphoné démb bu ñu téléphoné maa ngi Rosso ñu ne ma mënuñu jot ay tentes fii Nouakchott parce que am na ay problème diggante yëngu-yëngu yi ba mënuñu luy tant fii man ma téléphoné Haji wax ko xaaj ne ma tente du manqué. te kenn du ko luye am nañu lu doy ci tente ci Matam mu daan te disponibiliser nañ ko pour Sarsara lépp loo xam ne ñun war nañ ko mën a def dinañ ko ci def incha allah te it ñoo prévoir incha allah ngeen ñëw Matamulane comme ni ngeen di def chaque année délégation yi jëm ba Matamulane ñu teral leen foofu comme ni ñu ko daan defee ajjuma lay doon incha allah bu soobee yàlla. Euh, dinañuy dem encore c'est prévu cette année comme l'année dernière dem Gérard ya encore te bëgg a mu gën a ñu yaatal dem yeneen i yi nga xam ne sëriñ bi jaar na fi jaar jaar jaar jaaru sëriñ bi yëpp daal bëgg nañu koy progressivement ñu koy dugal ci biir Sarsara bi màggalu Sarsara. seen digganteeg waa comité bi yi nga xam ne ni ñoom ñooy def exposition bi. waaw exposition bi nag. dafa am comité spécial bu ci nekk man yàlla dafa def ma ne ci communication bi ne ci com ci transport bi foofu la ñu ma féetale mais am na beneen kuréel boo xam ne bi ils sont responsables ils peuvent mieux euh, mën nañu wax li ma bëgg a wax mooy gis ne maanaam dafa am suñu Tuubaa fii. mu am ay bagaas ay ay ay ay lettres ak ay objets yoo xam ne ni mu ngi fi euh, ndax yooyu yéen a ngi def gëstu pour ñu nit ñi mën koo. Euh, waaw loolu loolu c'est loolu war na am gëstu mais gëstu bi demagul demagul ni mu war a demee parce que am na relation yu bëri yu mu bind lettres yu mu bind diggante wala di maan Cheikh Sidiya ak i Ida Wali waaw comme maamu Haj maamu Haj am na correspondance ak moom waa na bàq yi it am nañ correspondance ak moom waa Barayna am nañ correspondance yooyu yëpp dafa laaj. ñu kenn ñu ñëw fi gëstu loolu mais na doon rechercheur nag kuy gëstu da ngaa war a am jumtukaay yi nga xam ni da nga mën a gëstu parce que boo gëstoo to indiloo résultat bi ñuy ñaan di bi nga war a am xëy na mu joxe sax effet boo xam ne bi du du bi ñu moo tax il faut un comité d'experts chercheurs yoo xam ni historiens yi ngi ci yoo xam ne daal mu nekk daal am compétence nécessaire pour génne vraiment ce qui est scientifique ci jaar-jaar bi waaw ñoo ngi ñaan yàlla rek mu may ñu jàmm may ko Sénégal way ko Mauritanie yàlla fay euh, euh, rëq-rëq yi ci am léegi waaw ba ñu ñu man di def suñu sarsara correctement ñun li ñu ñor mooy ñuy gis suñu sëriñ rek li ci des amul benn solo waaw dina day jeex waaw ñuy màndu nag ci suñu sëriñ yi ñaar gërëm yàlla mi ñuy may ki ñu euh, womat ah, ki ñuy xalal yoon bi mu yoon bu jëm ci yàlla yoonu yëpp nag ci yàlla la jëm waaw moo tax ñu ne ay frère ay mbokk ay dëkkaale lañu ay xarit Sénégal ak Mauritanie kenn mënu ko séparé alhamdulilah dañuy ñaan yàlla rek may yàlla may ñu jàmm ba ñu fekkewaat sa sara déwén te yàlla guddal euh, fanu euh, Serigne Sidi Mbacké ak euh, xalif général waaw Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla may ko kattan ak wér gi yaram parce que moom vraiment sa sara jox na ko jëmmal na ko jëmmal na it nitu diine yëpp vraiment it Euh, Cheikh Ahmadou Bamba am na contribution au niveau africain moo tax euh, képp njàngam war na àgg fu ne jazakumullahu xeyran salaam